acca salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àddina maa ngi leen nuyu di leen ziyaare tey nag dañoo ñëw fi nga xamante ne mooy maison de la culture Douta Seck seet si suñu yaay ki nga xamante ne mooy ndey ji réew waaw mu ne ndey ji réew nag mooy ndey réew ñëpp nag ki nga xamante ne moo uuf ñëpp tey ni mu tur boobu ni mu ko wuyoo mooy que ne kooku moo uuf bépp artiste comédien nekk xale euh, nekk di liggéey ci wàllum Douta sekk fii di liggéey aar bàyyi ñun ñëpp ñun ñëpp moo ñu bokk yi njaboot kon nak ñu bàyyi ma maamu nuyoo rek. Hmm. waaw alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh momo ma ngi lay nuyu di la ziar sha allah di ziar bepp artiste sha allah rawatina nak ci wéru koor gi ñu nekk ni ma ngi lay bëggee bu baax di la kontaane. contane hmm. nañ bu baax a baax baax mama di la di la xana nga bal ñu ak rek. Ah, waaw di jéggelu bu baax vraiment dérangement bi. di tay nak dañu bëggoon poser quelques questions. Hmm. ci li nga xamantene moy théâtre bi. nak ku wax journée mondiale du théâtre wax théâtre le 27 mars nag tey ñu bëggoon la poser question jigéen ci art jigéen ci biir théâtre ban jafé jafé la jigéen di dund ci théâtre ak jigéen bi ban taxaway la wara am pour mu am nit ñi ci mën koo jox gëddam ci li nga xamantene mom lay def ni métier di théâtre théâtre wax nga lu am solo wax nga liggéey bo xamantene dang koy commencer ci bi nga nekk ci sa biiru yaay ba ba nga déwé ci sa jouru dëj Moy théâtre muy métier mo xamantene dang koy def ci diggante bobu. ba bi nga dee ñu lay siir yaa liggéey te buñ la ci fayee xaalis sa njaboot lekk ko day lew bu nekk métier noble nekk métier bu riche nekk métier boo xamante ne lu ci waay lekk rek day lew mhm. ndax euh, yëg-yëg ba ngay am di ko def ak euh, coono ba ngay am di ko def ak euh, li nga xamante ne boo ko amee da ngay dem bokk ceeg sa njaboot mu nekk mekk métier boo xamante ne ñun dañ koo taamu nekk ci ñu nekk ci nag bokk kook suñuy càmmañ bokk kook suñuy doom bokk kook suñuy rak bokk kook suñuy mak ñu nek nak nek bu rafet macha allah eh, jigen ci ar nak mom dafa nek lo xamantene lu question bu neex nga ma laaj ndax gis nga jigen dañ ko yaakar ni dafa ro tok ci kër ga rek di togo ko yak foot passé ah dañ taw dañ passé jamono joju amona na mais yoy ci suñu maam la won gis nga jamono buy dox da ngay dox di and ak mom ta jamono ji ñu toll nii théâtre dafa xew téléfilm dafa am ciné millier cinéma yi dafa am yooyu yëpp nag boo seetee ñoo bokk ndey ak baay dadi nag cinéma moo leen mag mais ñoo bokk ndey ak baay mu nekk loo xamante ne jigéen ñi ñu ngi ci biir di ko liggéey di ci liggéey nag lu mucc ayib nanguwu ñoo des gannaaw benn yoon ma ci ñaax nag bépp jigéen ak bépp xale nañ ci demee fulla ak fayda ak ngor ak dignité ak liggéey nag te yem te liggéey ba te yam ca liggéey ba mais nga liggéey ci fulla ak fayda di liggéey ci ba mu jotee aar bi am na doole de rawatina nag ci ñun jigéen ñi ñoo ko téyee nii wuñ ko benn góor loolu leer naa la <laughs> ñoo ko déggandoo gis ngeen ko Mama Diatou boroomi feem moom moom wax dëgg fa neex yàlla jigéen bu mën góor bu yéegandoo yow si kaw seen bi boo ñàkkee sens tuuti nekk góor mun ngaa réer waaye nag am fulla am fayda moo tax ma posé ko question boobu parce que jigéen si théâtre dafa metti jigéen si théâtre tem ñu ne la boo demee di ko defee ñu ne xool cam est-ce que du caga mhm. est-ce que du fay taxawaalu ji mhm. waaye nag fulla ak fayda yaakaar naa ne mooy tax nga def ko waaw acca waaw ñoo ko déggandoo vraiment maman pour ne pas jël sa temps tey jii nii mhm. xanaa di la laaj rek ban conseil ngay jox xale yi si nga xamante ne mooy jafe-jafe jamono fi ñu tollu tey tey tey tey tem réew mi ñoo ko bokk ñu ñëpp ñoo ko moom ñoo ko moom waaw yow waaw ku war a yore nguur gi yor ko ku ko wërta yor nga xam ne waroo ko yor mm-hmm. ñu dugaloo ci bopp xale yi parce que instant yi xale yi ñu ngi jàng saa ne kenn ku nekk na nga def sa bopp li nga war am yaa li nga ko am soo ko wërta am doo am mm-hmm. ba ci xale yi ci aar bi loolu laa digal bu ñu gaawantu bu ñu yàkkamte ndànk-ndànk mm-hmm. aar bii kenn ku ci nekk li ci nekk sa wërsëg di nga ko lekk ca ba nga ko waree lekk mais nag na ànd ak ngor ànd ak dignité ànd ak Pastef ndax liggéey bi ngor rek la laaj boo amee ngor rek di nga am lu bari mais boo amulee ngor daañ la utiliser te doo ci am dara acca maman kontaan nañ vraiment bu baax a baax di jégalu nag jël sa temps bi ñu jël sa temps waaw maman jox ñu dernier mot rek nga nuyu après jërëjëf wax naa sant yàlla rek di ñaan yàlla koor gi ñu dugg ni ñu commencé bisimilahi rahmaani rahim eggale alhamdulilahi rabi alamin suñu journée mondiale bi suñu yëf la ñoo ko moom nañ ko yàgg a di ko garbam neex barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. acca gars yi merci beaucoup. acca coupé maman. salaamaaleykum. jaay jaay jàmbale jaay. da nga def waay. jàmbale. waaw Alima. gisuma ko. ah. jaay moom ni ma doon doon naka nga jëlee. imam daal jàpp nañ jóge ba tey daal la ji ñëwul sax saa ko sax. sëñ Ba gisuma yow lu imam nekk suba ba mu ngoon xam nga ko. man nii yow. déedéet njaay. kon yow sëñ Maodo da nga bëgg a wax ne limaam bi ko. ndax ko yéene te ñëw di ko seet. ah teg na yow sa délégation ma wujju yow ko. wujju waaw. xaram ci weeru koor lañ ne. imaam bu man maa ngi koy soobu yëpp réew mi yaa ko wax. yow sëñ Maodo nga ne yow yow wala imaam takk na ñaare. billaahi ak koor gi ma koor xaw ma ne imaam takk na lay tax a wujju. may wax mooy jaay loolu la imaam. imaam boo xam ne day jiite ñuy woor day jiite ñoo xam ne dañuy woor te moom ci boppam moom imaam bi du woor imaam mu mënul woor xanaa damay xanaa la moom loolu moom mënul ne maa la wax lii imaam woorul wooraale bu leen yemoo nag seen koor gi ngeen di koor ngeen dem di ko imaam du ko yëkkati fal ko si jumaa ji mu ñuy jiite lu neex te du ci boole woor bu fekkente ne imaam du woor loolu maa ngi ko jaaxle yi di jënd ko ba mu mat sëkk bu dee ko xaaral ma ci woor imaam xamal